الباقي من الأمراض وكب من أنكر بانقلال براني باقي من الأمراض وكب من أنكر بانقلال لو شكر يا الله. déglu bu baax. doo ci am force. maanaam li ñuy occasion. ci laa ci ma ko ci jaare yéen xam ngeen xalaat ji nga xam ne amoon nañ ko si liggéey sëñ Tuubaa ci jumaa ji jumaa ji buñ ko dee wax dafa laaj matériel ak ñi nga xam ne ñooy liggéey ci jumaa ji jëmm yi nga xam ne ñu borom roo la ñoom ñëpp ci jumaa ji loolu mooy liggéey ci